xanaa terame la woon sa jàng mi ba taa jàng am solo jóg daara lu la ko jàng dama njaay mi lom bëgg mooy ma toog kër gi de liggéey liggéey kër gi lii nag ah man de sama nijaay mi jaaxal na ma su bëggul daba njaay mi jàng lan la bëgg waaye nag pexe du jeex xaama ñëw dem kër bàjjanam ba xam ñëwal toogal ate ñëwal ñëwal asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa kii du bàjjan xale yi bàjjan xale yi gën naa laa gis de lu wan ko di dox naan ay daara kan laa la gën a gis sama kër gi xanaa it tey rek waaye fii moo ma fee gëj toogal ana xale fa ba ñu ci jàmm aywa ci jàmm ñu ngi xale yi man de laa soxna jàmm man sama nijaay mi dama ja man de sama nijaay mi dama jaaxal lu tax nangul sama doom ji jàng boo waxee rek mu naan la njàngum jigéen amul solo ah loolu la wax man de sama rakk ji xawma lu ko dal waaye nag baax na maa ngi koy ñëw léegi asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi fi maa ngi ci jàmm ci jàmm ana sama rakk ji xanaa daa génn ñëwal aka toog leen yéen ñaar ñëpp toogal aka toogal yow it aka teel ah, ah. asalaamaaleykum as eh, asalaamaaleykum sama mag waxal ci kaw ah, boo gis de tere am naa gan ana xaraña ñuy fa waa ñuy ci jaam ñu ci jàmm kay alhamdulillah ah man da sama rakk yaa ma tax a jóg ba tax mu jàng loolu foo ko teg daa ko teg maay gis xale jigéen ñi mu ba am benn na ko fa ñëkk naa nañuy sëy sama gis na loolu yàq la foofu kese laa ko ah man de sama rakk bi yaakaaroon naa ne paas nga fi xanaa xamoon ne école soo ci jàngee weer wala ñaari weer wala at xamee nga fa dara kon loolu du yàq ndax arab dafa wax ne al ummu man rasatul ula yaay mooy école bi njëkk kon yaay dafa war a jàng kon yaay dafa war a xam ndax arab mi wax ba tey na isa xallamta wala dam ba xaqayam ta fadam soo jàngalee benn xale bu góor xamal ne benn nit kese nga jàngal wa iza kallamta bintan fa qad kallamta ummatan soo jàngalee benn xale bu jigéen xamal ne aw xeet nga jàngal ndax jigéen su baaxee sa seetara baax àdduna baax kon nga gis njàngum jigéen ni amee solo bu ci biir kër yaay moo jàngal xaway te moo leen yar borom xam-xam yi dañu wax naan soo bëgga àdduna jàngal soo bëgga alaaxira it jàngal xanaa gi soo bëgg daal di ñëw ci am jàng rek ko ko waral ak jigéen ci réew mi jigéen ci réew mi ak jigéen ci ay a jigéen su réew mi ak jàngkatu jigéen su réew mi ak yeneen ak yeneen ak leneen am jàng rek ko ko waral asama gi yayama tax ma la dama njàng wii de waaye yaayam ji sax ñu leen ñu jàng ci alxuraan ta xam ne diine ji mooy coosaan jàng du wees ku rey du jàng rey ba ne mbër day taxa toro jaahil du jiite ja commandé yàlla ko wax yonen bi wax ko sëriñ si wax ko fi kulli xaal sàpp soxna jaara nga tàggoo dama xale yi macha allah jàng am na solo jàngal góor jàngal jigéen eh, tuyaaba ci nekk yëpp xale yi wax nañ ko ne sar ngeen tàccuwaatal ma xale yi tàcc xombo xombo xombo xombo su sàpp soxna jaara nga tàccuwaatal ma xale yi waaye ci taalif bi léegi damaa bëgg nag ngeen déglu ma xale yi taalif yi ñu indil déglu ko bu baax yéen xale yi seen caw daa bari yéen xale yi seen coow daa bari dégluleen acca nga indi ñu taale bi bu baax a baax bii ngay wax na micro bi di way ndagam katatu balagam ku fi dayloo xelam nama fakkal bigam bind ay way yu ñor di silim ay jëfam su ma baaxee di gor ne bareet fay bind ay war yu ñor di silim ay goxam su ma bànkee jugoon ne bëri fay ko bind ay way di silim ay jëfam ki ya doktoor di rey ki ya tee diine fay bu dul woon moom ba tey du ñu jaamoo këgam ba tubaab bii di tër dugg kër yee ko wër nara dekkil badar ku ne daw dem këram la ba kanam sama tër du ragal di reenam koy feetal ak i mbër yu ñu yabal te taxul fit wa dem sama mbër du ragal tiré nañ koy feetal ak i nag yuñ yabal nara jël bakkanam te taxul fit wa dem sama kaafew du gor ne bareet fay ko bor bind ay way yu ñor di silem ay jafam dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox dafa kàbbar ci ndox bamba dafa kàbbar ci ndox macha allah fàttoo leen ma ko tàcc xamu xamu xamu xamu ana soppay si Ahmadou Bamba waay tat tat tat man nag leen ndongo ma ci gën a neex bamba dafa kaabar ci ndox bamba dafa kaabar ah yéen mën leen a taalif naa bàyyi xale yi àggale taalif bi ana su koy fàll acca léegi nag ñëpp ne tekki déglu su koy fàll mais tàkko moom jël na coupe bi daa mel ni hee tàkko masha allah xanaa ma ko déglu su koy fàll ba xam lu mu indi moom tàkko mi nii ko te gaña de su koy acca bismillah

jaar bu ne jàng ak jafee la xam booleeg koog yari gone du tey la elefe tey rek sa dëkk ya yaram na leen dëgg booleeg fonk mbokk ya du leen di gënale daa jël ñépp yaamale xeebut badol la bi mi ngi def dëgg jàngale liggéey bi metti na xaarut kenn jiit ko ca lii moo di lii gëm moo cay njëkk mujj ca lii moo di lii mu gëm moo cay njëkk mujj ca xaarut ma sàmba ji xaarut ko ci wormaal na nit ku ne li ya tax ñun ñu sopp ko ku din la ci xorom milliard jënguloowu ko waaye kon baa ngi nii su ma juumee wax leen ma ko Cheikh Bara Mbacké mi ku mu yor dëgg naw nga ko te duut li liggéeyam moo ñor gaaya woon sura ba tax ñu àndandoo booloo yut ko ay gëne sigil nga xam-xam jaajëf cant ñeel na la Mbacké bala yaay ku bax ku la xam dëgg ñeel na la da duuna dëggu na laa biiram du xam nga ko

kooku mooy Cheikh Abdou Aziz Bara Mbacké macha allah eh, Adama Diagne. aca Mbène Mbène Ndiaye ana Mbène aca nay gaaw walla da ngaa da ngaa da lox. gaa yi fi jaar doomam tarkal la. tet tet man gaa yi fi jaar daal tarkal la. ma def sama technicien moom bu ñuy téléphone rek ma ñu sama lu ko day toog daa ko <laughs> ngeen sa gaa fi jaar neexu ñoo man de bismillah kon cant ñeel na ki ñax sax ba sax di ca moo xam la tax ñaxa ndax ñàkk ndox bu ñu cax duy cax ne sax te du sax laa sax ka sax te du sax kuy wax ci lii ma fi wax kaay wax te nag bu fi lox yii sax te kenn du ci sax ndax kenn ci ñoom ne du sax sax kenn na kenn du fi sax buur rek mooy xela sax yaatu yiw yaru yembet ci ñepp maam amoo sikk yeewu ak yërëme tàngaraw te luñ la damm ko yaatu yiw yaru yembet ci ñepp mam amoo sikk yeewu ak yërëme tàngaraw te luñ la damm ko daan fanaane di jullee ka werd mam amoo sikk tey jëloo di ñu rootal xëyan taxal mulul dak moo te sa doon yey sangum ñi nangu bay sukku mooy sangum ñi fi laakiit ku xam li xew te daw dikk soxna jaara bu soo tax ñu dal di way ba naan ñu ko dëkke foori tamaaki yati galañ ba ci rukk soxna jaara de moo tax ñu dal di togg ak ay yàkk bay bañi dama daa taali supp kanja bay yàkk yàppu xar ak i nag ponkal yi ginaar Adama Diagne daal di ñëw Adama bismillah Ahmadu Bamba ndeysaan nga sargalal ma ko waay ñun Bamba doy nañu ñun Bamba doy nañu ñun Bamba doy nañu ñun Bamba doy nañu ñun Bamba doy nañu ñun Bamba doy nañu doy loo nan ko dootuñ ñu fab ñun Bamba doy nañu doy loo nan ko dootuñ ñu fab téere ki maxtu mi téere ki maxtu mi téere ki maxtu mi téere ki maxtu mi ay ndoom bay fërëg di ko takk koo xam ne bëgg na gàllaaj ak alal ak nit na daal di jog tab bi gi tamoo di ndigal na daal di jóg tab bi géttam gi tamoo di ndigal mais qui paie lourd. Sinon, les vous avec du cœur. qui prennent naissance ou vont d'une cœur. Un grand merci, un petit merci. Peu importe sa taille, il n'a pas de dimension, que ce soit dans la soie ou dans la tristesse. C'est un signe de reconnaissance qui ne connaît pas l'indifférence. Merci Serigne Abdul Aziz Barambake. Un petit mot qui fait d'une paix on le prononce. Un petit mot gracieux qui calme et réjouit. Merci, merci Serigne Merci de nous avoir permis de vous dire merci. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien durant toute l'année scolaire. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre amour et vos encouragements. Nous vous remercions de tous nos cœurs. Serigne Abdoul Aziz merci pour les invités. allah. tàccuwaatal ma xale ñu dellu seen place na ñëpp dem toogewaat seen place ñu daal di continuer incha allah léegi programme bi jeex nañ ñëpp delluwaat seen place incha allah noonu lay tëddee. aja bu ko defee nday nogay kayre na ñaw xadi géey nday nogay kayre xadi géey na ñaw walti suur maam jaxate Dieng maam Jaxat Dieng walti suur maam Jaxat Dieng ne ñëw Moussa euh, Fam Moussa Ngam Marème Diané Moussa Ngam Marème Diané nañ ñëw Mourtada Diouf ak euh, Soxna Diouf nañ ñëw Abdou Abdou Mbab wala Buri na ñëw Sukar Sukay Fall aca ñooñu dégg seen tur ñoom la ñuy xaaj ko taabal ji ndeysaan Moussa Ndiaye ngi noonu nga tàccal ma Moussa Ndiaye waay macha allah. الذين tey waloon nañ leen ci ñoom ngir ñu leen di wattu أن ثوب الكفار ما كانوا يفعلون moo ndax yéefar ya lañu daan def vraiment alxuraan ji لا يعلمون وإضافة إلى ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسهل يعوصنا في سعي إلى طلب العلم حيث حال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وصدق صلى الله عليه وسلم إنه يعتبر دائما talabul helmi faridatu ala kulli muslimi wal muslima walaw fi duwalil aafay wa fil hadir utlubil helmi walaw bi sinni ayyuhal musaiduna al ajlaw wal mustami'una al aisa wa min al ahwali lati waradat min hasaidi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulu fi turati khadamu talabil helmi ma yali wa man naakum an tahallumi فهو خليفة لحين مجرمه ومن نهاكم عن التعلم فإنه يهدكم لنقامه إذن أيها الصغار والكبار طلبه فائدة معممة لكل مسلم وكل مسلمات فساروا طرا إلى التعلم وجاهدوا النفوس بتفاهم وإطعاما لرأسه خطبة واجهه أطيب شكره وتقديره إلى جميع حاضرنا والحاضرات وكل ونمود إليكم يدا تسامه وسوء وسرور وكل عام وأنتم بخير وسلام وود وعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir, monsieur le directeur de l'école Serigne Abdou Aziz Barambake. Chers directeurs, chers enseignants et enseignantes, chers élèves, chers parents d'élèves, chers invités. Nous vous présentons nos chaleureuses salutations les plus distinguées. Nous savons l'honneur et le plus grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un peu sur l'éducation. D'abord, l'éducation peut être considérée comme l'ensemble des processus et des procédés qui permettent à tout enfant humain d'accéder progressivement à la culture. Ainsi, l'enfant a besoin d'une bonne formation, c'est-à-dire d'être éduqué à l'école tout comme à la maison. De ce fait, le rôle de l'enseignant est de former l'enfant en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales. de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale. Gatchengala les enseignants. Pour ajouter, nous constatons que les filles qui très tôt l'école à Touba. Pourquoi Parce que notre société n'a jamais donné une grande importance à l'accès des filles à l'école. Et pourtant, il est nécessaire qu'elles acquièrent des connaissances à l'école. Ainsi, elles pourront transférer ces savoirs acquis à l'école pour mieux participer au développement de la nation. En outre, nous estimons que certains parents ignorent que la femme peut exercer les mêmes fonctions que l'homme. Elles peuvent devenir des enseignantes, des ministres, des avocats, des ingénieurs, des opératrices économiques et même présidente. Donc, pour terminer, chers parents, c'est à votre tour d'accompagner l'enfant à accomplir sa mission. On entend souvent ce proverbe wolof qui dit peccum liir bu neexee ndey ja jàpp ca mag ya. Nous vous sur votre aimable attention. Soyez les bienvenus. aca a ginnaaw ba ma sante yàlla jolle ci yonente bi sallallahu alayhi muslu ci saytaane ñi ngi nuyu mboolem ñi fi teew di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Basiru di ko ñaanal gudd fan ak wér di ci teg suñu di ci teg suñu mudir Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacké di ci teg mboolem waajuri élève fi teew ak mboolem gan yu góor di leen ndokkeel di leen sant ci wuyusi bi ngeen ñu wuyusi di leen wax dal leen ak jàmm ndax seen teewaay sunu mbégte la ginnaaw bi loolu jàllee suma waxtaanu tey dama koy jëbal ci gëstu ak njariñal xam-xam bu ñu dilloo tuuti baat bi njëkk wàcc ci alxuraan mooy baatu iqra loolu day tegtale ni xam-xam mooy ubbi lépp ci xam-xam ji ngay xamee kan mooy sa boroom naka nga jaamoo ndax moom moo wax ni xam leen ma njëkk ngeen may jaamu bu ngeen ma xamul nan ngeen may jaamoo yéen mbokk yu tedd yi yàlla na ne ndax ki xam dina yam ak xamul ci loolu ci la yonente bi sallallahu di ñu junj si xam-xam ji lay waxee naan képp ku soobu aw yoon day xam-xam yàlla dina ko yombalal yoon wa jëm aljana mu tekki naan sàkku xam-xam farata la ci góor ak jigéen ay yéen mbokk yu tedd yi suñu sang ba Seex Ahmadu Bamba wax na ci ay barab yu wuute ci xam-xam ak loraange yi nekk ci ñàkk a jàng ak ñàkk a xam-xam mi ngi naan képp tere jàng mooy xalifab seytaane fii si suuf képp tere sàkku xam-xam mi ngi woo jëmale si maa ngi ceg di soññee sàkku xam-xam naan na ngeen jëmm ja xam-xam te ngeen jaxaat seen bakkan ci jéem a xam ngir ma tënk waxtu wi ñoo ngi sant mbooleem ñi fi teew di leen baalu àq di leen baal di ñaan ñu fekk ay at bari wasalaamu aleykum wa Machallah. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers parents d'élèves. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Sona Diaragay. Je suis à la classe de CM2. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre débat qui a comme thème la non des filles. Donc avant de commencer, je vais laisser mes camarades se présenter.

Je m'appelle de cm de la non des filles. Sans plus tarder, on va essayer d'entrer en matière. De nos jours, nous constatons que les filles ne parviennent pas à s'inscrire massivement dans les écoles. La non-scolarisation des filles est un véritable manque pour le développement d'un pays. Elle présente un risque important pour leur avenir et celui de leurs enfants. D'abord, au cours du débat, nous allons essayer de donner les causes de la non des filles, ensuite de donner les conséquences et enfin, pour terminer, de proposer des solutions de ce phénomène. Je donne la parole à Modou qui va se charger pour la lecture des causes La pauvreté et ses multiples facettes sont les principales raisons pour lesquelles les filles ne reçoivent pas d'éducation formelle. On peut citer aussi les travaux domestiques, c'est la case des filles qui aident leurs parents sur les tâches ménagères. Les mariages forcés impactent aussi la non-scolarisation des filles car les parents imposent de retour leurs en mariage. Bàyyi leen xale Merci. La parole est à qui va nous lire les conséquences. La non-scolarisation des filles aurait comme conséquence le mariage précoce, les grossesses indésirables, la difficulté de trouver un emploi. En effet, une fille qui ne va à l'école aura plus de mal à faire entendre sa voix. La vie ne pourra pas s'exprimer, prendre les décisions qui concernent sa vie, voter, participer activement aux périodes de la décision de la société dans laquelle elle vit et avoir un rôle en tant que citoyen libre. Aussi, une fille non éduquée ne peut pas comprendre l'intérêt de donner à ses enfants une éducation de qualité. Merci. On donne la parole à Amisek qui va nous donner les solutions de ce phénomène. Il est important de favoriser une collaboration étroite entre l'école et la famille. Il nous faut aussi un dialogue régulier entre les équipes éducatives et les parents d'élèves. Donc, il est nécessaire que les filles puissent bénéficier des mêmes droits et des mêmes opportunités que les garçons à l'école. Merci. contre la pauvreté. C'est pourquoi Nelson Mandela disait l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc c'est à nous maintenant, filles que garçons, apprendre pour essayer de changer notre Sénégal. Merci, Sandé tout pour le débat. Euh, nay gaaw tuuti ñu def araf nañ daal di toog ci kaw guddo bi mu daal di gaaw tuuti te xam naa borom rajo yi xam naa soxla sa biir bi fekk quoi. aca <laughs> toog leen mu gaaw tuuti. waaye toog leen mu gaaw ngeen nekk nii aca. aca. bismillah général. Xaadim Fall. général bu France. Xaadim Fall Xaadim Fall. ay Sani Sukran.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 في معهد دراسة إسلامي شيخ عبد العزيز بار مكة شكرا بسم الله سرين خادم فال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ismi xaadim fall ana taalibun fi madrasati cheikh abdou asis baara mbàkke fi touba sura fi safi mutawassiti saani sukran walidayhil waxti سنوجههم مبصرة إلى المعادلة فموضوعنا اليوم يتمحور حول المرأة في الإسلام حقوقها وواجباتها بسم الله سيدنا عبد الله ما هي مكانة المرأة في الإسلام شكرا على سؤالكم لقد كرم الله مرأة ورفعت أسنها بعد أن تعطل في الجاهلية فقال سبحانه وتعالى wa ida busira ahadukum bil unza dalla wajhuhu muswadan wa huwa kazim laqad karama allah yatawarra min qawmi min suu ma busira an yunsihu halahun am yadu suu fi turabin ala za ma yahkumun wa qala aidan wa ida al mawudat zuilat bi ay zambin qutlat wa ba'dahu jaa al islami wa karama al mar'ata wa rafa'at min qadriha qala sallallahu alayhi wa sallam innama an-nidaa saqaa'iqu rijalin معناه عن النزاع مثل رجال من قدرها والمكانة كما قال ما كرهن إلى الكريم ومعناهن إلى اللئيم إن الإسلام رحم المرأة فأوجب لها مهرا كاملا الإسلام رحم المرأة فقال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال أبوك تكريما بحقها الإسلام الإسلام رحم المرأة fa jaala laha mirasan min zaw min zawjiha wa ixwaaniha wa awlaadiha al islaamu raima almarata fa harra zawaajuha wala bila waliyin wala suud hada ma uridu an aqula wassalaamu aleykum wa rahmatullah sukura sëriñ Abdullah bismillah soxna maam Fatou Diop hal lil mar'ati huquuqun fil islam sukran yaa loota نعم نعم للمرأة حقوق في الإسلام شكرا إذن ما هي حقوق المرأة في الإسلام؟ حقوق المرأة في الإسلام كثيرة منها أولا xaqul xayaati lil mar'ati la xadd karamallaahu lil mar'ati wa rafaxa zënaahu wa saana karamatahu wa xafisa sarafahu wa axtaahu uquuxan kaanat تفتقدها حبل الإسلام وأنه تهل حقوقها أهمها حق الحياة فحرم قتلها وقال تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ثانيا حق المساواة في الحقوق لقول تعالى ولهن مثل الذي عليها بالمحروف وللرجال عليهن درجة وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء سقائق رجال ثانيا ومن حقوق أيضا حق التربية ورعايته للمرأة وعلى والدها أو أولياء أموره حين تكون بنتا أكرم الإسلام المرأة حين تكون بنتا وجعل جزاء من يربي البنات ويعتني بهن ويحسن في تربيتهن جزاء عظيما وهو جنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال جاريتين حتى تبلها جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين ودم بين أصابعه رابحا وكذلك من وقوعها حق طلب الحلم وحق الميراث وحق المشاورة في اختيار الزوج شكرا يا لوط شكرا وخذ Cuidado, ya me tienen la ojo, Fatou Diop bismillah Serigne Khadim Fall hal lil mar'ati waajibaatun fil islam naam lil mar'ati waajibaatun fil islam isan maa hiya waajibaatu mar'ati fil islam naam ويجب على المرأة في الإسلام في الأسرة والمجتمع من هذه الأشياء والآيات أولا تكوين أسرة سعيدة قائمة على السكون والمودة والرحمة وتربية الأطفال وتعلمهم بطريقة صحيحة ومفيدة ثانيا المحافظة على بيتها وإنزاء زوجها ثالثا المشاركة في مجالس الدعوة إلى خير كالقيام بالأمر بمحروف ونهي عن المنكر وهذه واجبات في حقيقتها هي تساهم في دهم المرأة فلا بد من معرفة مكانة المرأة فدودها فحال في المجتمع فهذا هو أبسط واجبات مطلوبات من المجتمع أعوذ بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم الإجابات واضحة جدا هذه نبسة عسيرة من صور إكرام الإسلام للمرأة لا يمكن أن توجد في أي مجتمع من المجتمعات بدون الإسلام بل الأعداء الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين قد أقروا بأنه لا يوجد دين أكرم مرأة كما أكرمها الإسلام ولا صريحة عن صد مرأة ورفعت من سانها وأعطته كامل حقه كما فعل الإسلام وأرجو أنكم تستفيدون من الحديث وكل حامي وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته vraiment macha allah xale ay jàmbaar lañ discours arabe ak français journal bi kon dañu dem ci yéen ñi wàcc taabal ji yéen ñooñu taxaw wàcc leen ñi nga xam ne ñoom ñooy def tajwid bi anañu maam Jaara Njaay moodu Njaay Juma Ndey Ñang Aram Lo Moussa Ngam Ibrahima xam ñoom ñooy def euh, tajwid bi ñu ngi ni toog maam Jaara Njaay ah ata bismillah léegi damaa bëgg ana ki may jëlal euh, kii bi jury bi kan moom may jëlal kii bi jury bi non ku may jëlal note ana Oustaz Mun Njaay daa dem kan moo ma jëlal ñot ana Oustaz Mun Njaay aja bismillah kon sëñ Abdou Aziz ñu xool bàyyil ñu xel not yi incha bismillah وصحبه kàppu attaque bisimilah Maodo Ndiaye Maodo day defaroon xanaa ne ko di tëj bu nekk ak sëñ Maodo bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان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 ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم Alam dulu, nanti ganti.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 ربك الذي خلق خلق الإنسان من حلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استحنى إن إلى ربك الرجحى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنفسه فهم بالناسية ناسية كاسبة هاتئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bye. Sangam. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان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 عاملة ناصبة تسلى نارا لامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يشمن ولا يعطي يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسهيها رأدية في جنة العالية لا تسمع صدق الله العظيم Thank you.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 ولا أقذب بالنفس اللوامة أيعذب الإنسان أن لن نجمع عسامة بلى قادري على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجع أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البشر وقذف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وشر إلى ربك يومئذ المشتقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم. ko defee ñu bala ñoo jàll dañu bàyyi ñaari équipe yi ñu présenté wu. waaw équipe A. présentation

Bonjour les invités, bonjour les parents d'élèves. C'est mon nom suis en classe de CM2. Équipe B, présentation. Bonjour. Bon, bonjour, c'est invité, c'est parents Je me nomme Seynep Fall, suis en classe de cm Bonsoir les invités. Bonsoir les parents d'élèves. Je m'appelle Binti Diaw. Je suis en classe de CM1. Bonsoir. Bonsoir les invités. Bonsoir les parents d'élèves. Je m'appelle Mame Diarra Fall. Je suis en classe de CM1. Bonsoir chers invités. Bonsoir chers parents d'élèves. Je m'appelle Soukay Fall. Je suis en classe de CE2. Bonsoir en classe donc dañu commencer ak question collective yi équipe A question yi yéen ñëpp yéen a koy bokk yéen ko bokk yéen ñëpp première question que signifie la dégradation de l'environnement Que signifie la dégradation de l'environnement La dégradation de l'environnement est la somme des dégâts causés par l'environnement. Exact, équipe A. Deuxième question, équipe A. Qu'est-ce qu'un animal aquatique? Donne un exemple. un animal aquatique donne un exemple. Un animal aquatique est un, animal aquatique est un animal qui vit dans l'eau, exemple poisson. Réponse exacte, Troisième question. Troisième question. Quelle est l'unité principale des mesures de capacité? L'unité principale des machines de capacité, le litre. Le litre, exact. Quatrième question. Quelle était la capitale du royaume du Jolof? Comment appelle cinquième question, comment appelle la femelle d'un âne? Âne, La payment de Réponse exacte. Équipe B, question collective. Première question. Qu'est-ce qu'un cul... qu'est-ce qu'une culture vivrière? Donne un exemple. céréalière, c'est une culture qui fait pour la consommation, exemple pour le riz. Réponse exacte, 10 points pour l'équipe Deuxième question. Citez deux principaux droits de l'enfant. Deux droits de l'éducation, droit de l'alimentation suffisante et saine. Réponse exacte, 10 points. Troisième question. En quelle année le Sénégal a eu son indépendance Le Sénégal en En réponse exacte. qui était le troisième président du Sénégal. Le troisième président du Sénégal était Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, exact. Cinquième question. Comment appelle-t-on la femelle du coq? c'est la poule. la poule exacte. Question individuelle, équipe A. Bandemeng. Première question, c'est pour Bandemeng. Première question. Conjugue le verbe finir à la personne du pluriel à l'imparfait. finissez exact. Deuxième question pour Sohna Diop. Euh, le Premier ministre est-il est-il ou nommé? Le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé. Le Premier ministre est nommé exact. Troisième question pour Aram Thioye.

résolution de problème. exact cinquième question pour Amifal Nias comment appelle-t-on quelqu'un qui aime son pays quelqu'un qui aime son pays. Moustapha Bamba Sirangi. quelqu'un qui aime son pays c'est pas ça réplique. jël baax na. quelqu'un qui aime son question individuelle équipe B première question c'est pour Seynabou Fall conjugue le verbe pouvoir à la première personne du pluriel au passé simple No film, exact. Exact. Deuxième question pour Bintou Diaw. quappelle t triangle équilatéral? Un triangle équilatéral triangle. Un triangle équilatéral est un triangle qui trois côtés et trois angles Exact. Troisième question pour Mamdiara Fall. Quelle est l'unité principale des mesures de volume L'unité principale des mesures de volume, c'est le mètre cube. Mètre cube, exact. Quatrième question pour Soukey Fall. Comment appelle-t-on quelqu'un qui écoute la radio Quelqu'un qui écoute la radio appelle auditeur ou auditrice. Un auditeur ou une auditrice, exact. Cinquième question pour Astou Thioye. Citez deux déterminants indéfinis. Ça cite Réponse exacte. question identification c'est pour 30 points première question bi premier indice bi 30 points lay doon bu kenn faussé dañuy dem de. Ah, baax na jërëjëf léegi tataal leen loolu la jox ma yow ok macha allah tataale ko tataaleel ma ba si ko defee kon euh, mu mel ne Sénégal bu tajut bi fi jaaroon maam Diarra njaay am na point points Modou Ndiaye am na 18 points Juma Pouy am na 19 points Ndeye Niang am na 18 19 points Aram Lo am na 18 points Moussa Ngam am na 19 points ci tajut bi Abdou Pouy am na 19 virgule 5. Ibrahima Faye am 18 virgule 5 kon Abdou Pouy moo jël première ak 19 virgule 5 tarif bi kooku dana am kaamilu alxuraanu karim moom Abdou Pouy première bi. bu ñu xoolee groupe A ak groupe B ci zinañar bi ñii doon def jogante bi et groupe A euh, am na 90 points 90 points groupe B am na 110 points kon groupe B moo gën a groupe A jërë ngeen def acca ñi def. Euh, musaabaqa saqaafiya arabiya nañ yéeg musaabaqa saqaafiya arab musaabaqa saqaafiya arab nañ yéeg mu gàttu ci wàcc leen may ñii ñu toog yéen ñi wàcc leen taabal yéen booy wàcc leen taabal ji yéen ñëpp laa wàcc leen taabal ji eh taabal ji yow mi taabal ji wàcc leen ñi def seen aner ba en arabe nañ mu gàttu ci walla ñibbi nañ na gaaw ñii def Sen'Herbe arabe nañ yeeg ñëwuñu Sen'Herbe arabe toog leen ci seen banc yi xaw ma nëmm gay xaw ma nëmm gay sama yoon newu ci ay nëmm gay ñii def Sen'Herbe en arabe nañ yéeg xam ngeen seen bopp ñaari équipe la équipe A équipe B yéeg leen ñi def Sen'Herbe en arabe anañu ñu bokk si équipe bi fu ñu jëm ba leen di wo équipe bi mat na aja loolu seen affaire la kan moo ñëwut ni mu waaw ah, dégg na la bu ñëwul yéen a yi loolu problème un problème seere leen ko rek toogal ana ko yor euh, question yi seen àndal ànd ana sëñ Bakantay na ñëw ana sëñ Bakantay ana Oustaz Moundiaye yow la ñuy xaar de seen àndal arab bi ah sëñ Mbacke Anta joxu la ko woon yow la ko joxoon kan moo ko yor journal bu arabe bi question yi ana sëñ Mbacke Anta yi damaa tiyaataru ana sëñ Mbacke Anta yi daa dem Oustaz mu Ndiaye yow la joxoon question ana sëñ Mbacke Anta yi sëñ Mbacke Kanté anamu moo yor question yi. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara. di leen balaax di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal. di ñaanal suñu xalifa Cheikh Mouhamadul Mountakha mu gën fa yàgg lool te gën a wér. ba mbooleem naal imaam ci lislaam yëpp mu satal ko te lépp ñu ànd ak moom. di sant yàlla bu baax ci programme bi nga xam ne ñi ngi ko doon waaj ba bis bi ñëw ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ñu koy sant bu baax ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee te yàlla gën ñu cee dollee defal ay ndam ñu yëkkati kàddu gi nag ci turu Cheikh Abdoul mi nga xam ne ay mooy almudirul am ci institut islamique Cheikh Abdoul Aziz Bara Mbacké Touba Sourah mu yebaloon ñu ngir ñu yëkkatil ko ay kàddu yoo xam ne kàddu yi sant rek lay doon ak kàddu yi ngërëm mu doore ko ci gannaaw bi mu santee suñu borom bu baax sant Serigne Touba ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér mu wax ne mi ngi doore cant gi ci jàngale jàngalekat yi nga xam ne ñoom la seqaloon daara ji te liggéey bi yëpp di ñoom ndax ni ko oustaz nag waxe léegi moom ñaare bu dikkee rek te du bëgg a toog bàyyi leen waaye li ci jàngalekat yi ñoo koy yor kon lii ngeen fi lépp muy ab résultat moo xam ci arab moo xam ci alxuraan moo xam ci français ak lu mu ci mënti doon nee na loolu jàngalekat yi nekkoon ak xale ci classe yi loolu seen liggéey la mi ngi leen di jaajëfal lu baax di rafetlu itam seen ab liggéey bu baax a baax a baax te di ko naw nee na di sant itam bu baax parents d'élèves yi nga xam ne ñoo am kóolute ak yaakaar ci daara ji ay barab yu baree baree bari romb ay jàngukaay yu bari waaye daara ji doy leen sëriñ bi doy leen jàngalekat yi doy leen ñu tax ñu taamu daara ji indi fi seeni doom nee na loolu aw sas la ko def woo xam ne jamono yu nekk day tax leg leg du mën a tëdd nelaw ngir yaakaar di ngeen am ci daara ji suñu borom man leen ca defal lu kawe njort nee na kon loolu mu ngi leen di sant bu baax ci yaakaar ju jooju waaye di gën a feddali itam seen kóllëre ak moom di leen gën a jox loxo itam di sant itam bu baax mbooleem élèves yi nga xam ne ñoo doon jàng ci biir daara ji te itam jàppale mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi ñëpp ndax bu fekkoonte ne directeur bi wuti na programme bu baax wut ay classes yu baax ak mbooleem li mu laaj cim njàng indi fi ay jàngalekat yu am efficacité euh, ngir mën a jàngale te xale yi nanguwu ñoo jàng yitam nee na su boobaa résultat du am waaye nee na xale yi itam nangu nañoo jàng ngir xam nañu leen lii ñu leen bëggal seen njëriñ lay doon ëllëg ak seen njëriñ ñëwee jur tax doon ñu teg ci seen bakkan ba tax résultat bi ñu am nii ñu mën koo am nee na kon moom itam mi ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal kenn ku ci nekk lépp loo fi xamee rek yal na ko yàlla barkeel nee na mi ngi sant itam bu baax dëkkandoo yi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi dëkk ak école bi ndax ku ne xam na ne dëkk ak daara dëkk ak école dafa metti da ak yeneen ak yeneen am ci ñooñ sax léeg-léeg ñu génne ci école bi bàyyi fi toilette ci classe bi dem ci kër yi waaye noonu lépp àq yooyu yëpp nee mi ngi leen koy jégg lu baax te xam ne it ne xam ngeen ne xale moom alalu yàlla la da ngay weer rek kay weere ëllëg yàlla rek moo ko xam ba tax na loolu lépp loo teem mu ngeen ci mënti jànkonteel ci ay coona nee na loolu da ngeen ko muñ ngir xam ne liggéeyub yàlla la nee kon mi ngi sant dëkkandoo yi bu baax a baax di sant itam mbokki boppam yi nga xam ne mooy mbokk yi mu bokkal Serigne Touba te ñoom itam ñu taa teew ci bis bi taaral ko ci taarin wu am solo waaye sant mboolem jàngalekat yi nga xam ne ñoom itam teew nañu ci bis bi jóge ci ay école yu fasanti ko waaye kenn kóllëre ak sëriñ bi seen kóllëre ak jàngalekat yi seen kóllëre ak école bi tax ñoom ñëpp ñu dagg seen i ngir teewee sa bis bi nee na mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq nee mi ngi sant mboolem koo xam ne jàpp nga ci bis bi ak noo ci mën a jàppe nee na di sant itam bu baax xale yi nga xam ne ñoo jaare woon ci école bi ba jàll wëlbatikuwaat gestuwaat école bi di ko delloo njukkal jamono bu nekk bu bis bi dikkee ñu boole seen fukk ak seen juróom waaye jël seen doole itam jàpp ci école bu baax a baax nee na kóllëre googu itam gis na ko itam bu baax te naw na ko mi ngi leen di ñaanal kenn ku nekk la nga yëngu yàlla gën caa def barke nee ngi leen di sant baax di sant daal mbooleem koo xam ne teew nga ci bis bi ak sax koo xam ne amoon nga yéenay teew te yàlla dogaloon nga mën a teew mi ngi leen di sant bu baax a baax ñaan yàlla bis bi ñu teewe ko at yu baree bari te bis bu ñëw gën a gën a tawfiixe yàlla gën a dolli école bi ay najaax yu kawee kawe yoo xam ne yu kawe njottu lay doon ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine nee na loolu mi ngi ciy sant baax te di ci ñaan di wax ne incha allah dong nga yëpp te mooy élèves yëpp nañu xam ne incha allah le 2 octobre incha allah ci la école war a ubbiwaat ngir commencer inscription yi ngir wéyal am njàngam loolu képp koo xam ne mi ngi fiy jógee nee na nanga nga nekkoon la kon le octobre incha allah ci la école war a ubbiwaat lii daal mooy kàddu yu sëriñ bi waxoon ne nañu ko jottali te mooy yu jotoon sëkk xëy na lu ci manqué ci ñun la manqué waaye lu ci jub ci borom bi la ñu ngi leen sant baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.